min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wallahu buur yàlla ci suratu nuur ba tey samiun mooy déggaa firi ne kuy dégg la mooy déggaakoon bi ndax lu yëngu rek dégg na ko wa ma tasqutu min waraqatin yàlla ne garab gi ruusal ay xobam bëriwi bi sax mu ngi may tànqal wala ratbin wala yaabisin illa fi kitaabin mubin yàlla na dugub bi rot wala xobi garab bi rot la muy tuuti tuuti maa ngi ko bind ca sama téere bu mag ba loolu sax échappé wu ma man yàlla kon suñ jëf yi waxee noppi te war na ñoo yeewu de billaay yii ci yii application yii ay whatsapp ak ay yu kenn xamut yii war na ñëw tegtal nit ñi ne yàlla am na wala déet waaw ah, kañ wallahu buur yàlla samiun mooy aji déggaakoon bi alimun mooy xamaakoon bi ndax moo xam lépp waaw yàlla moo xam lépp moo xam lépp ku ci nekk rek sa xam-xam am na fu mu yem waaye yàlla xam-xamam amut fu mu dale amul fu mu yem mu ne walaa ya'tali ulul fadli minkum wassaati an yutu ah lu ci topp ulil qurba wal masakini wal muhaajiriina ah wal muhaajiriina fi sabilillahi wal wal yastadafu déedéet wal anamu fi sabilillahi moo ci topp téere bi nag moom moo tax tafsiré ko neexul wal yaafu wal yasfaxu waaw kañ alaa tuhibbuuna an yaxfira allahu lakum wallahu gafurun rahim suñ borom nee bu mu nay wala yaxlif bu mu soppi ulul fadli ñi nga xam ne borom yi ngëneel lañ maanaam am nañu koom ba nayee joxe seen alal buñ ko def ci ñi nga xam ne yàlla daf leen nattoo ñàkk minkum wa saati ak borom wërsëg yu yaatu yi an yutu ba ñu bañ a jox ulil xurba seen jege ñaale yi wal masakina ak miskin yi wal muhajirina ak ñi gàddaay bàyyi seen lépp bàyyi seen alal topp yonent bi dem màkkat medinatul munawara bàyyi lépp dese zéro ndax yonent bi te amoon lu dul jeex ba tey day am xam nga ñoo dëkk Syrie tey buñ ne mënatul am ñoo dëkk Syrie amoon lu dul jeex daw ñëw Europe ñooñu ndimbal war na ci ñoom xoolal tey ni leen tubaab yi di dimbalee rek te jullit ñi la waroon xam nga benn gàcce rek waroon na doy jullit ñi kenn dawee wut siri jëm Arabie Saoudite alaa jàllin mos nga ko gis fay boo leen bëggoon yóbbu Arabie Saoudite sax ñu ne mukk France te bu ñëwee naan yéefar yi yéefar yi yéefar yi te ñun yéefar yi ñuy dimbale waaye cessé nañ ñu dimbale mos ngeen gis réfugié bu daw jubli ji Koweït Bagdad nag Arabie Saoudite nag katar nag Dubaï nag mais lu tax ñooñu am alal judut jeex te benn réfugié musulman xalaatu daw jubali ci ñoom mooy baaxuñu il faut dire la vérité ni ñu waxante dëgg buñ dawee rek ci réewi tubaab yi lañ jëm te buñ demee xoolal Angela Merkel bii ñaata milliards la développé la la la génnee pour le réviser réfuser syrien syrien bu ne am na trois cent euros salaire gratuit jox la foo dëkk nourriture bokkul ci li liñ lay dagg liñ lay jox am na ci ñuy am huit cent euros te ka koy defal du jullit te ñam koy defal ay jullit lay France jël quota Allemagne moo ëpp quota bu mu jël gis ngeen Italie fan yii yëpp ñu ngi ci négociation ak union européen pour refuser yi liñ laaj ñoom euh, union européen nee na dafa bari waaye du tee dinañ leen jox lu tax ñuy dimbale refuser yi lu tax Arabie Saoudite mën ta def noonu ak seen alal ju jeex ji te ñu ko kat ñun ñoo ko moom di lay aji màkka budget bay dugg biir màkka dañ ko waroon di séddale jullit ñi xar ya ñuy rey ca màkka dañ ko léegi la ñuy commencé rek te karkaas ya gën a bon la ñuy indil Sénégal ñun ñu ciy ŋawti ŋawti rek nag waaye doo leen gis mukk ñu indil ñu lu am solo te pourtant ñun jullit ñi ñoo moom alal jëfane loolu tax ma wax ko sawaa'unil aakifu fiihi wal baad yàlla ko wax yàlla ne ne yemoon na kott ki dëkk màkk ak ki fiy gan ah <coughs> sawaa'unil aakifu fiihi wal baad yàlla ne na yemoon na kott ki fi gan ak ki fi dëkk kon jullit ñi war nañu seetaat seen bopp lu tax kenn du daw jëm ci ñoom koo gis mu daw rek mu nga wutali itali Espagne Allemagne Amérique dëkki tubaab yi rek waaye dëkk jullit ñi kenn du daw jublu fa ndax boo demee ñu jekkali la ma kuy xor-xoral nga ñëw doggali ko mu dem yoonam loolu lañ xam ñoom waaw xoolal ñu jot a jaar libi rek ñu def leen jaam takk leen di leen liggéeyloo xoolal rek xam nga ne kooku boo ko waxatee libi moom bu soobee yàlla da bàyyi ba noppi door a bàyyi libi waaw moo tax nag wal yaafu yàlla ne dee leen jéggale wal yasfaxu man de wal yaafu bi gisuma ko xaw ma da ko tëb xaw ah, mu ngi nii tëbu ko de mu ne wal yaafu dee leen jéggale yéen jullit ñi est-ce que baat bi dégg nañ ko ñun wal yasfahu dee leen jéllale gis nga dee leen jéggale dee leen jéllale alaa tuhibbuuna ndax bëggu leen an de yaxfira mu jéggal allahu yàlla buur yàlla lakum ñeel leen yàlla ne xanaa bëggu leen ma jéggal leen ñu ne ko ankañ mu ne kon dee leen jéggalante ci seen biir moo tax buñ xeeb yi di am ci tabaski baal ma baal naa la xam nga xeetu yonent bi bu ñëwee ne la baal ma nga ne ko baal naa la rek bàkkaar bu mu la yoree loon tàbbi na bu roon ci xeet yu njëkk ya nag bu ma ñëwee ne keebaatam bi du baal màq daf ma naan loo ma def <laughs> te bari na koo xam ne boo ko waxoon loo ko def yet lay jël la ci waaye du la baal xam nga loolu dara gënu ko garaaw bari na koo xam ne boo ko waxoon li nga ko def moom yet lay utaat dollil la waaye du la baal loolu xeetu yonent bi rek ko am boo ko nee baal ma ci sa xol ngay yéene waale loo ko defoon ci kaw suuf su la nee baal naa la rek jeex na lépp duggaale na ci biir xam nga loolu bëgg yàlla jéggal ñu rek a tax ah, su ko neexoon mu def ni yeneen xeet yi yàlla ne nag ku bëgg ma jéggal la del jéggale waaw ku bëgg may jéllale say mbir del jéllale mbiri jàmbur yi xam nga luy jéllale nga dégg ñu wax la baat bu safaanu nga mel ni ku ko déggut yombul nag te kala ko wax nga yeble ci moom teraanga mhm. wax naa leen ko fii di ci koor gi paase rek am na ci koo xam ne buñ dajee te fii lay ñëw di xadara fii ñoom Mansour Gueye ñii xam nañ mos naa ko fi jiital it sax waaye boo dajee woon ak moom léegi biir géejawaay ne ko ci Chérif laa jógee mu dagg saagaw ndey teg ci sama der billaahi wal kitaab ba léegi bàyyiwu ko ba tey ba fii may toog di wax ak yow te nii ma la xamee yow kamara laa ko xamee boo dajee woon ak moom léegi ne ko xadara laa jógee mu ne waaye nangam taan kooku def di dara te bu ma gisee ay dara karaara ba ngay xalal la ko yaayam ne woon karaa yaa fi gën maam billaahi wal kitaab benn gan gu jóge Saalum dem ci moom ne ko dama bëggoon dem xadara kër Chérif mu daggal ma saagaw ndey woo xam ne gan nga yenn loxom di yuuxu woo ma téléphone wax ma ko ma jël xaalis def ci enveloppe yónni Sayid Guèye ku ma àndaloon ak Atumaan ne ko demal ba këram nga joxal ma ko ko ne ko suukaru kooram lu may wàññi Sayid Guèye ngi may dégg Atumaan a ngi nii du bàyyi ma fet bañ demee tagg yëpp ma doon tagg yëpp dañ ko enregistré bi ñëwee ma ne la effacé leen man soxlawu ma bu yàlla bi laa bëgg na yàlla dégg rek te loolu li ma ciy def yëpp ñemewu ma leen ko wax man loo dégg ma jàngale ko jëfee naa ko yàlla bum di caacaay nag waaye loo dégg ma jàngale ci lu baax billaahi jëf naa ko ndax damay wattandiku ataamuruna naasa bil birri wa tansawna anfusakum anfusakum yaa ayyuha alladina amanu li ma taquluuna maa laa tafaluun ñaar yooyu dama koy wattandiku lu tax ngeen di wax nit ñi lu ngeen dut def kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la tafalun rëy na fa yàlla di bàkkaar bu mag ngeen di wax lu ngeen du def yàlla ne ndax da ngeen di digal nit ñi te du ngeen ca nekk kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas lu tax taamuruna bil maarufi wa tanhawna anil munkari wa tuminuuna billahi wa rasuli looloo tax loolu li may wax dama bëgg rek ñëpp jàngee ci loo rek laa ci jublu te waa ngi fii léeg-léeg mu ñëw xadara léeg ma jiital ko duma leen wax kan la déet duñ ko xam fii ñi fii jiite bari nañ di fii kañ borom xam-xam bu ñëw mën la ci kanam nuñ koo xam fii ñi ko fi mën a xam bariwul buñ ko mënoon xam sax duma ma ko junj lim ma wóor ne nuñ ko xam te ñi ko xam ker buñ ko waxee ma baleen te weesu wu ñetti ci biir xadara bi Mansour Guèye mii la aatu man ak Pape Moodu bu ko keneen xamee ñoo ko ko wax. ndax teraanga ñoom laa ko yónni ci ñoom ci moom ba léegi sama teraanga ci moom daggut te du dagg ba ba may dégg ne dee na wala dee na te man tey la ma gën a bañ te xam naa ne it du ma bëgg ba yow mal xiyaam loolu xam naa ko te defuma ko dara it nag looloo ma ci gën a neex mais yàllay doxalee noonu abi lahab lu mu def yonent bi lu ko yonent bi def bon dara defu ko dara daf ko mënta digérer rek <laughs> ba <laughs> yàlla wàccee ci moom maar day taali li wàccee ci moom amul problème loolu nag sama sëriñ ma ko jàngal alaaji abdul aziz dabbax idfa billati hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun xamim wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru wa maa yulaqaaha illa zu xazin adim moo ko jëfee ma gis moo tax ma mën ko loolu la sëriñ di jëriñ loolu la sëriñ di jëriñ moo ko def jëfee ma gis te ki mu ko def xam naa ko ki ko ko def xam naa ko sëñ Baye Abdou nettali na ko ba tey ci Tiwaawoon bu ma ko waxoon Mor mii alaaji Mor Ndiaye bii di taalibe alaaji Abdou Aziz nekk ca Pomba di tàggkat yonent bi su ma waxoon turam mu xam ko te bim gaañoo yàggut matagul su ma bañul fen daal matagul trois ans bim gaañoo ak léegi te ba mu ko defee alaaji Abdou ak léegi ëpp na fanweeri at ñëw fekk ko ci kër gi kër alaaji Malick ci Tiwaawoon di ko daggal loo xalaat ci lu bon mu yàq ko góor gi sëñ Baye ab doo ngi toog doomam bëgg a jóg mu ne ko Babacar booy jóg ma génne la ci sama njureel te du ma yem ci wax ko rek damay takk rajo bii ne Babacar juratuma ko ak góor ga Njaay mu ne ko yow mbeqit nga la loo fóot fóot mu xëy toogal santuma la dara ñëpp ne xumm boobu tisbaar àjjuma bési àjjuma la comme tey julleeguñ juma ñu toog tuuti góor gi ne ñim toogaloon waaj leen ñu julli ji juma ñëpp ne tasar dem julli ji mu ne chauffeur bi demal ci magasin bi yeb saako ceeb dugub lu ne suukar lu ne mu yeb ko ci bem fees mu dugg ci kanamu oto ba ne Babacar kay gunge ma teg ci ay piis moom kay lépp la kenn mënta lim rek moom rek a xam la ca ne woon ak ñam àndaloon kaay leen gunge ma ñu dem mu naan chauffeur bi jàddal mooy wax chauffeur bi jàddal jàddal jàddal bañ gaare bunti kër waa ji sëñ Baye nee na mu ne nikk loxoom ne ko Babacar boo xamoon ne fii laa jëm si sa digganteeg sa borom ndax di nga ñëw mu ne ko dama du julli ju jumaa ba nga may gis mu ne ko yéen lay jàngal seen ëllëg mu ñëw asalaamaaleykum waa ji mel ni poto bii mu ne ko xanaa ku la nuyu nga fay ko mu ne ko yegsil mu yegsi mu ne ko sànq ci yor yoor de da ñëw ci kër ga am noo jëflanteeg man te yëguma fu ma la defee dara wala fu ma la tooñee nit nag mën naa tooñ nit sax te du ko yëg moo tax may teel a baalu si balaa ñoo dem ca kanamu yàlla ëllëg fa baalu du yombee ma teel la baalu fii su fekkee maa la tooñ baal ma àq mu mel ni poto bi baal ma àq mu mel ni poto bi mu ne ko ah li ma mën de def naa ko mooy baalu la néew naa kàttan amatuma doole indi naa nag ay teraanga yu ma doon jégguloo yu ma doon tuubee keroog laa yëg ne ndekete tuub ak jee baalu du benn boo baaloo boo boo tuubee ba pare boo baaloo be pare da tuub moo tax ndeke mag ñi buñ daan tuub buñ la daan tuubal yóbbaale guro xam nga nit mën nga ko ne baal ma mu ne la waaw léegi baal naa la fekk am na lu des ci xol bi waaye boo wàññee cent mille jox ko nga dégg mu ne man kañ mosoo maa def dara cent mille yaa tax moo génnee la ca dënn ba waaye boo boo demoon ak loxoy neen joxoo ko dara baal bi du dana des waaye boo ko nee baal ma mu ne la baal naa la ba noppi nga wàññi cent mille ne ko maa la ko tuubalee da nga dégg mu ne yow kañ yow kañ gor piir nga waaw ci laa déggee ne tuub ak baalu du benn mu ne ko li ma la doon tuubalee nag mu ngi ci oto bi maa ko waroon yenn ci sama bopp bi indi ko tegal la ko ci sa ruum bi waaye amatuma kattan néew naa doole Babacar muy sëñ Bay Abdou mu ne ko demal ca manga demal ca oto ba bu kenn jàppale yàlla ma la saraxee ci sama deret ji bu kenn jàppale demal yenn ko benn par benn indi ko fii sëñ Bay Abdou dem ca oto ba di ko yenn par benn kenn jàppalewu ko par benn ñëw jóor ba mu jeex sëñ Abdou ne ko maa la tuubalee lii yëpp nii ma leen xamee laa xamee turi waa ji waaye duma ko tudd ndax am nay sët am nay doom billahi wal kitaab yi ni ma leen xamee laa xamee turi waa ji bi mu faatoo ak léegi matagul trois ans ci la dooru yuuxu nag ne ko defoo ma dara dañ maa monte pour ma dal ci sa kaw mu ne ko bu fi tudd kenn kenn monté wu la ko dogal ndax dafa am laayee du ma daan jàng man Abdou mu diree ko ci sama kaw mosuma am application bi yaa ma may tey application bi mooy idfa billati hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun xamim wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru wa maa yulaqaaha illa zu xazin adim yàlla na ki la di la def lu bon ak lu ñaaw yow dëkkal di ko defal lu rafet ak lu baax dana mujj nekk sa xarit mu ne waaye loolu kenn mënu ko am na lu dul ko bëgg ca cër yu mag ya mu ne te man ab Abdou bëgg naa ci cër yu mag ya moo tax ma def lii dal di ne tàll tàllal loxo yi ne ko ñaanal ma yàlla ah waaye waa ji ci lalu paralysé la dee de maa la ko wax ba bi muy dee mënta yëkkati loxo caaxaan baaxul te tooñ baaxul ah? waaw ah lépp ñaar fukki at dund na ko ci loxo sax mënu ko yëkkati maa la ko te góor gi baal na ko waaye dara martaba al martabatu laa tusaamih waaw al martabatu laa tusaamih nit ki mën na la baal waaye yàlla moo naan maa bañ te yàlla bu nee maa bañ na kenn mënu ci dara loo ci mën yàlla na waaw yow baale nga sa wàll mu ne waaw mu man maa baale wut sama wàll te loolu am na tey maara day taali ku njàppoon tëj la ci criminalité eh, crime boo def wala nga sàcc bu la ki nga sàcc wala ki nga rey mbokkam ne baal naa la am na lu la justice di topp dëgg la wala déet loo xam ne état ko moom te état mooy kan mooy ñun ah partie civile mu ngoog jeex na loolu état daf la koy topp doonte ki ko seqal baal na la kon nag ñu jeexal moo tax nag suñ borom nee na wali afu dee leen jéggale wali asfaxu dee leen jéllale alaa damane man yàlla may wax tuhibbuna ndax bëggu leen an be yaghfira mu jéggal allahu buur yàlla lakum ñeel leen ñu ne ko ankañ mu ne su ngeen ko defee ma jéggal leen lu tax mu ne wallahu buur yàlla xafuurun mooy jéggalaakoon bi du ca yem rahimun mooy kii mi xam nga yàlla nu muy defeeg yow da koy tooña tooña tooña tooñ ba tooñ yi bari ni ma la ko mën a misaalee tey ci misaal boo xam ne nit mën na ko dégg rek président wóolu la de la république son excellence monsieur Macky sàll def la ngay ministre wala député nga am accès toog ci urumam xam comprendre ngeen li may wax nga toog ba mu neex ko rek ba mu neex la rek nga xool ko rek jóg tëgg ko pes tër xam nga gravité foofu la yem mooy yàlla goo gis nag noonu la toll dama leen di jàngal mooy yàlla alaaji baara mooy yàlla boo gis nag noonu la toll moo tax boo demee ci euh, suufi yu ahlu suufi ñoom bàkkaar bu ndaw amut ndax dañ ne bàkkaar boo def yàlla nga ko def te yàlla ju ndaw amut ñoom loolu lañ donte nag yàlla ne fajtanibu kabaira al ismi wal fawaxish ma zahara minha wa ma batan gis nga gravité boobu fekk président bu toog te wóolu na la xam nga wóolu bi lu ma ci jublu yàlla la bind wóolu la ne sama jaam nga nga war ko ndax alastu bi rabbikum ja ñëpp a nangu woon nga ñëw fi balaa ja ñëpp ko waxoon nga ñëw fii weddi weddi googu saaga yàlla la ñu ne déet nag nga sàcc saaga yàlla la nga fen saaga yàlla la nga njaaloo saaga yàlla la nga jëw saaga yàlla la mu ngi ma fekk mel ni nga fekk kilifa gu toog nga tëggu ko pes gravité boobu gis nga ni la président wóoloo in xam nga lu tax ma indi ci kóolute gi ku président wóolu doo nekk ci ronam inna aradna amaanata ala samaawaati wal ard wal jibaal fa abayna an yaxmilnaha wa xamalaha al insaan innahu kaana zaluman jahulan li yuadiba allahu almunafiqina walmunafiqaati walmushrikina walmushrikaati wa yatuuba allahu ala almuminina walmuminaati wa kaana allahu gafuran rahiman amaana booba nag yàlla joxoon la nga war mooy pes nga yàlla président wóolu la nag nga toog ci kanamam amoo looy def lu dul xaj ci ba jekku rek ni ko tir garde yi ne kër kër këpp ne la suq bëgg laa suqatoo mu ne def leen ndang garde yi def ndang mu ne bàyyi leen ko ñu bàyyi ko mu ne ko dalal mu dal mu ne ko duma la laaj sax lu tax nga pes ma baal naa la xam nga moom moom euh, euh, moo yore ni nga koy waxeeti fonds politique dugg ci biir ñaadam ñaadam ñaadam génnee cent milliards cent millions génnee cent million ne ko bëcc ci sa kanam ne la maa la ko may nga ne déet mu ne nommé naa ko ambassadeur ca Chine ku koy dindi kenn du ko dindi ña la doon pes ñoo lay maajal léegi ña bëggoon jàpp pamti pamtee la ñoo lay maajal léegi mu dugg ci biir signé décret bi ne diw ambassadeur ca Chine yóbbaale cent millions yi ku la neex may bu la neexee taalal yàlla noonu lay doxalee ab jullit mbaaxu yàlla laa leen di woon mooy baat bii mu wax soo ko tooñee lu tooñee rëy rëy boo summee ne ko baanaa yow yaay yow la man jaam la mu ne la kaay gars raw nañ la bu yàgg waaye kaay ma defal la compte boo xam ne dang leen di dab ulaayika alladina yubaddilu laahu sayyiaatihim xasanaat dawal nga dabi leen ñoom tooñ ñi réy na waaye comme summeeku nga rek yëg nga ne may buur rek baal naa la yàlla garmi la waaw pire waaw noobul la ñun ñooy njaddari loo ci def sa morom mu ngi lay xuñ xuñ xuñ kanamu yàlla sax bu ngeen tesee mu ne yàlla mm, mm. yàlla ne xool ma ci mm, wallaay am na ñoo xam ne bu ñëwee ba ci kanamu yàlla yàlla dana day tiinu bàllalal jiw bàllalal jiw yàlla ne ko nooy def mu ne na ma fay yàlla ne kul bët maa si nu yiwam yi Cheikh na Tidiane ko de nee na yàlla am na jaamam yoo xam ne bu ñu leen sëkkatalee ëllëg ca kanamam yàllaa naan kul bët mangasinu yoom ne ko xasanaatem duma ci laal waxal loo bëgg ma jox la te mangasinu yàlla du jeex muy tibb di la fay ba nga ne doy na mu ne wéyal kii sama jaam la maa ko préféré yàlla ñu yàlla boole ci ñooñu man foofu laa bëgg yàlla dugal ñu fa yàlla nañu yàlla dugal ci boobu gurgur ba buñ ko génn mukk ba buñ demee ëllëg xasanaati naa yàlla bu ko kenn laal waaw lu ñuy fayee yal na yàlla ubbi magasin yiwam yooyu ñun ñëpp laa wax jullit ñëpp nag yal nañ ci bokk bu ci ñëm mënta bokk it <laughs> ñun yàlla nañ ci bokk rek waaw ndax yàlla tamit am nay exception yal nañ bokk ci exception yooyu yàlla tànnal boppam yal nañ ca bokk bu ko kenn iñaanee sa morom kenn ku ne mën na ko am te cër la ci tarixa bi cër la ci lislaam bi dañ koy liggéey ci lislaam bi am ko dañ koy liggéey ci tarixa bi ba am ko Cerno Yaxya lii ko nettali ci gémmiñam moo ne dafa ànd ak benn xaritam dem ca maam Maska ca Gambi mu ne boobu maa ngi jógee ci maam Abdoulaye Baye Abdoulaye Niass ndax bàyyi ab la ko la ko waxoon waaye man maam la ci man moom Baye Abdou maam mu ne ci moom la jógee dem ca maam Maska nee na biñ yeggee waxtaan bay ñibbi maam Mas woowaat leen mu ñëw mu ne ko Yaxya mu ne ko mu ne ko yaag sa xarit bii de am na ko ci yàlla damm xalima bàkkaaram lu def neex na yàlla te xam naa kan la ci yéen. yàlla rus na ko bëgg na ko ba du ko bindal bàkkaar su ma neexoon ma wax leen kan la ci yéen ñaar waaye du ma ko wax ki ko am ànd leen yéen ñaar te yàlla tax ki ko am balaa yàgg dina ko wàll ki ko amut moo tax ma bëgg noppi mu ne ko ndax dañ koy wàllante ko am su ngeen àndee tuuti rek fii at wala lu teg rek ki ko am dina ko wàll ki ko amut looloo tax ma noppi waaye su ma ko waxee rek mu yàqu Cerno Yaxya nee na ma ma génn ma ak sama xarit bi ku ne di ko jiiñ moromam naan ko yow la mu naan ko man la mu naan ko yow la mu naan ko man la mu ne ba Bànjul boobu Madina Baay Maas la mu ne bi ñu demee Bànjul ma xool xool aw ma fu ma dal ma dem ci armeel ya dal fa juróom-benni weer fa la dal armeel yi néeg moo fa newoon néegub shérif shérif bu ñu fa robo ko mu ne bu bëccëgee gan yi <laughs> bu nit ñi ñëwee di ziar shérif moom mu ngi ca taati garab ga bu guddee mu fatu ci bàmmeel bi juróom benn weer nee na mburu mu woow laa doon dundee Cerno Yaxya moomu nag moo ma wax ni ma ne ko ah mu ne ma ñaari xalifa laa ragaloon ci kaw suuf billahi wal kitaabi ma ne ko ban ban mu ne xalifa Babacar Si ak xalifa Ñas mu ne ma ñaari xalifa yii laa ragaloon ci kaw suuf te xoolal ko Cerno Yaxya sori ci yàlla de min kibaaril mas naa ko fa yebal mu dem fa kii xam na ñu bari yebal naa leen fa ñu dem fa waaw yal nañu yàlla dolli sutura rek ngeen baal ma xaq moo tax nag wallaahu buur yàlla ah xafuurun aji jéggalaa kon la rahimun aji yërëmaa kon la kon ñuy jéggale di yërëme foofu la ñuy taxaw ba àjjuma bii di ñëw rek ñu dama bëgg àjjuma bii di ñëw nag bu saar yu mënee jeex daal ñu def ko waaw bañ euh, bu beneen yoonee nag ñu jël wal asri ak inna aradna al amaanata ñe buy saar bii jeexee daal ñaar yooyu laa bëgg ñu jël ko inna aradna al amaanata ala samawati wal ard ak wal asri inna al insana la fi xusrin wal asri rek nit mën na ko tafsir un an billahi wal kitaabi waaw te dama ci gis yu baree baree bare yoo xam ne dama bëgg ñu tafsir ko wal asri inna al insana la fi xusrin illa alladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil xaq wa tawasaw bis sabr bokk na ci saar yi gën a gàtt yaakaar naa ci alquran waaye moo ci ëpp njëriñ néew na saar wu ko ëpp njëriñ waaw incha allah bëgg naa ñu def ko tafsiru quran un an wala asri bu ci yàlla àndee waaw bu ñu neexee it ñu doxal tuuti rek bàyyi ça dépend ci yéen waaw inna aradna al amaanata li tax may bëgg ñu jël ko it nit xam fi ko yàlla teg yàlla def ñu teg fu kawe ñun ñu suufee lool boo jëlee aaya boobu nag summa radadnaahu asfala saafiliin moo ko fiiri yàlla daf ñu teg fu kawe ñun ñu wàcc bi suufe yàlla jéppi ñu benn ulaayka kal an ami xoolal ñii ni ma leen estimé ñu sous-estimé seen bopp fi ma leen teg ñu wàccee seen bopp ma teg leen ci avion ñu wàccee ci sareti mbaam ma jàpp ne ay nit lañ nekk mbaam xuuxa leen gën al an al an am mbaam xuux ci la bokk di aha yàlla ne ma jàpp ne ay nit lañ te nit la xuuxa leen gën ma jàpp ne ay nit lañ ndëkk xarum tudd miñ ko tuddee moo ko gën bari na kuy daagu sa xarum tudd la gën te yàlla nee na loolu loolu neexuma ne ma bëggee nit nit wàcce wàcce wàcc bi xarum tuddam gën ko ñun ñëpp war nañ ko daw man daal li ma bëgg bu ma sañoon senegal mel ni àjjana ci barke mag ñi su ma sañoon Sénégal mel ni àjjana te mën naa nekk gis nga kenn ku nekk bu nekkee ci li war a nekk ñépp am jàmm nguur gi am jàmm sëriñ si am jàmm taalibe yi am jàmm ñépp am jàmm xam ngeen ban pays moo ëpp sécurité ci mond bi xam ngeen du Arabie Saoudite de te charia fay dox ah déedéet États-Unis bu rey gi fa la gën a bari kii xam na li ma wax euh, euh, dëkk ba la ci weti Malaisie déedéet du Indonésie euh, hmm? léegi moom lañ xewal daanaka Dubaay ñu ngi koy xewil mu ngi côté Chine Kuala waaw Kuala Lumpur waaw kañ waaw Kuala Lumpur mooy mooy capitale u Malaisie ah déedéet yéen xanaa xamu leen àddina bi géographie bi xoolu leen ko mu ngi ci ànd entre Malaisie ak ak ni ñu koy waxeeti déedéet illa illa daanaka démb rek maa ngi ciy waxtaan pourtant xaw ma lu ma dal xool leen ko ah xool leen ko ci seen géographie yi rek seen portable yi am na ko waaw xool leen ko ñu door a ñu door a ñaan